waaw loolu du wax naa ci euh, commission d'enquête li may jëkk wax mooy dañ koo jëmalewul ci kenn commission d'enquête mooy indi leeral bi assemblée nationale amee ba tey fukki commission d'enquête rek moo fi am ko bii mooy fukkeel bi ak benn pour wax ni lu ñu fekk rek lu ñu lu ñu wax rek ci mbedd mi rek ñu ne ay aywa commission d'enquête parce que dafa am yoon bu muy jaar lii nag bi assemblée amee ba tey ñoo ngi soog a dégg député bu taxaw wax ni. am na juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent yu ñu luubal te moom am na ay këyit yu wane ni xam na fan la dugg te yàlla dafa ko nattu mu nekk député loolu kay boo ko waxee te bokk ci benn kuréel kuréel gi war nañ laa woo surtout que yoon may na leen ñoom ñu def ay commission d'enquête ñu nekkoon kon wax ñu li nga xam pour que ku ko def ñu rëq ndigam wala ñu def commission d'enquête boo xamee dina leeral ni kii moo indi yàqu-yàqu bi foofu rek la ñu toll. commission bi nag yàlla dogal na taxawal nañ ko waaye bi nit ñi di wax ak dañuy yàkkamteeg dañuy yàq campagne déedéet commission bi am na juróom benn weer pour liggéey duñu woo kenn fekk dafa am soxla tey bu ñu la woon sax ngay dem hôpital dañ naan kon nañ ko bàyyi ba suba bu ñu nit mu ne déedéet dama feebar dama bëgg a dem passé ji dañ naan nañ ko bàyyi ba suba bu ñu woon nit mu ne dafa feebar dañ naan nañ ko bàyyi ba mu tanee dañoo jàpp ni ci juróom benn weer yi dina tane su ko defee ñu woo ko waxtaan ak moom loolu moo tax ñu am rafet njort ni Sénégal yëpp xam nañu lu tax ñuy wa def li tax ñuy def mooy leeral ndax juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent dafa tuutul xam ngeen ni buñ ko indi woon fii jox ma ko fii ci Kajoor lu ñu fi jooy ma faj ko <laughs> waaw kon nag loolu bu fekkee am na ku ko luubal nañ ko xool ba leeral ko su fekkee leeral nañ ko état bi ñun suñu defee suñu liggéey ba pare li liñ ci mën a génn yëpp nañ ko génne pour yéen journalistes yi pour sénégalais yi mais itam liñ ci war a yóbbu foo xamee ni dañ ko mën a lijjanti dañ ko wax def ko fa parce que loolu yëpp ay charte moo ko tënk charte yooyu nag ci la ñuy tegu pour mën ko liggéey